di Serigne Saliou Mbakke moo tax ma bëgg déggaat jërëjëfatee sëriñ Saliou Mbakke waaye ku ko waxaat yal na say aajo di faju say teraanga di baawaan sa jàmm di sax waaye sa wér di sax jërëjëfatee sëriñ Saliou ay ca tàccuwaat leen seen bopp bu baax a baax grand théâtre ma dégg guddi gi tey nag dañ koy dooree ay playback bu ñu defee ay playback tuuti yëngal jotaay bi suñu noppee nag def ñaari discours Mouhamed Niang mu Serigne Saliou dikk tey jii guddi gi dana neex guddi la goo xam ni histoire da koy bind waaye guddi la goo xam ni danañ ko waxtaanee ay ati at ay ati at ba at bi di kat ndax ni ma gis ñu def nii grand théâtre tey ci seen bu taaru seen bu rafet waaye tamit spectacle boo xam ni bu amul fenn ànd càkk Mouhamed ñaa mu Serigne saaliw ma bëgg ngeen tàcc bu baax a baax ndaanaan bi ñëw mu di moo du wadd mi nga xam ni moom mooy aw Mouhamed Niang di rakkam ngeen tàcc ko bu baax a baax mu ñëw yëngal jotaay bi ay ca tey na neex te dama leen namoon nag wallaay ndeysaan ay ca jërëjëf yërmandeem ji dafa yaatoo man de géej laa kay xoole ay mbàkke boo ko seene tagali ko sa sago borom tekki géej maanoom géej mu ñaay gaak leeram géej yaa di sunu xol yaa di sunu wéeruwaay maam Saliwoo bëgg naa la sa doxin wee du fi ñaare ay mbàkke bu ko si ne dagali borom tekki gékk maanoom gi mu ñaay gaak leeram ge yaa di sunu xol yaa di sunu wéeruwaay maam Saliwoo bëgg naa la mooy ñagal fii di ñagal fee daw si leen di yoon waa ngi li mu deful sëriñ Béthio du luy saay moom mi sunu wasila yaa di sunu xol yaa di sunu wéruwaay maam Saliou bëgg naa la ana ñu bëgg sëriñ Saliou Mbacké ah kontaan nañ si ñëpp ana dem di nuyu ñëpp nag jërëjëf DJ Sow waaw waaw toogaay bi rafet na di leen ñaanal jàmm ci barki Serigne Saliou Mbacké ado ñu dem du nuyu ñëpp jërëjëf loxo rek ñu màgg Serigne Saliou loxo rek. loxo rek ñu màgg Serigne Saliou Mbacké. ndeysaan. ndeysaan way leen way leen way leen ko mbàkke way ndeysaan yaa defar dëkk bi ku la gis naw la ku gis sa nataal yërmande dab way yàgg jagoon baake way loxo mbàkke sëriñ saani way yaa jago way sa ñub yàlla saaliw moom boo ko seene seen leerub বলে tàccuwaat leen ko bu baax a baax a baax waaye moo Modou Wade tubaarkàlla li yëpp day wane ne cin bu naree neex bu baaxee xeeñ yëf day gën di neex lu ñuy gën di dem dafa am beneen daanaan boo xam ne temps yi nag nee naa moo amet ñaa defal attention parce que gis naa benn booy boo xam ne mi ngi sa ginnaaw di la aw mi ngi say tànk te rakkam la nag ñu bokk ndeeg bàyyi suma juumul ma bëgg ngeen tàcc bu baax a baax fàllu mu sëriñ saaliwu fàllu mu sëriñ saaliwu dikkal defal ñu spectacle bu toj ay ca tàccu ko bu baax a baax a baax cëm fàlloo ngi waay jërëjëf salaamaaleykum grand théâtre mbaa yéen ngi ci jàmm jërë ngeen jëf sëriñ saaliwu fekkoo sa nawle ci kaw suuf naaw la du la fekk kaw suuf yaay waay yaay sëriñ Saaliw benn nga woon dootuloo am maam kenn xamul woon sa melokaan wi bi nga ñëwee lanu gis ku mel ni yow maam wax leen ko sëriñ Saaliw jërëjëf Mbàkke Balla jërëjëf amul woon mësulu am ci dunya jërëjëf waa Grand Théâtre DJ ci ñun lañu xam waa na taal bi Cheikh Béthio Thioune yi waay di seen avril ma way ci bis ñu am tërëy ci ñun lañu xam kenn gorewul kenn rawewul bu kawe mooy sunu bisu gore ñi woote naa. 17 ko ca kaw naan gaa ñi woote naa. 17 avril. teg ko ca kaw naan gaa ñi woote naa. 17 avril. yow mi mu tax tay mi mu tax tay nga waaye tàccu leen bu baax a baax a baax fàllu tàccu leen ko bu baax <laughs> newoon naa leen booy bi booy bii waaye tàccuwaat leen ko bu baax waaye kii moo nar a ñëw grand kii moo nar a ñëw grand théâtre incha allah ak groupe def ko 18 lu leer laa leen wax xale bi mën na way am na yar am na teggin xam nga